conseil constitutionnel nag ànd na ak ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome ci ne Ousmane Sonko élection législative yi du ci bokk nee nañ yow liste euh, suppléant bu Yewwi moom mooy dem ci élection yi loolu nag di waxi caaxaan ndaxte élection yoo xam ne danaan toute l'heure duñ dem waaye suppléant yi ñooy dem booy dàqee dàqal list bi yëpp rek wala nga bàyyi liste bi yëpp jàll waaye list bi bu doon ni ab jëmm ñu ne benn tànk rek lay doxee te Ousmane Sonko tànk yooyu moom du ci bokk. loolu nag di dogalu conseil constitutionnel doon lu yéeme loo xam ne bis bu ko waa yeewi askan wi ak gars yi ànd ak Ousmane Sonko nangoo mooy nangu nanu seenug musiba ndaxte tappale yi am ci élection fii ci bureau di Sénégal ak sélection gi am ak bañ cohabitation gi am moo tax président Macky Sall di di jéem lu ne caatum 2019 la ko njëkk woon ak a parrainage Khalifa Sall Karim Wade ñoom ñëpp mu rocc leen tànn ay mbër bëre ak ñoom ci élection locale yu ñu wees mu ànd ak préfet ak yoon ba opposition bi fi ëpp ci réew mi amu fa woon ab liste loolu nag la mos mu neex ba ci élection locale yi mu dax ay liste yu bari yi su mel ay gëm sa bopp ak ñoomin seen jamono ji ngay jàllale Pape Djibril faal ay bokk gis-gis ak aar Sénégal yooyu la coalition ban doole lañ am ban ne benn erreur amul seen i liste loolu ay waxi caaxaan la waaye teewul bàyyi nañ leen ñu jàll ndax de ñooñu ñooy opposition bu ñu tànnal seen bopp ngir jàkkaarloo wuñ ci élection coolu cool yi ci liste Ndakaaru lañ ko waajoon waaye boobu danoo bëggoon a jox rek. kii di conseil constitutionnel après crédibilité liste ndakaar boobu fépp fu mën a jàllee liste nationale bu yeewu mën fee jàllee léegi nag ñu def seen i tappale ak seen i caaxaan ngir Ousmane Sonko bañ a bokk ci yële élection loolu tax Yewwi Askan Wi ak wàllu war am fulla ak fayda ci élection yi mooy bu liste nationale bu Yewwi jàllul ak Ousmane Sonko élection du am Sénégal wala boog bu élection di am Yewwi ak wàllu duñ ci bokk ndaxte lii nag buñ ko bàyyee mu jàll ma xam ne opposition bi ñoom ñëpp ay yambar fanaanoo lal jéem nañ lu ne ci Ousmane Sonko jiñ nañ ko rebelle jiñ nañ ko nooxoor jiñ nañ ko violeur jiñ nañ ko sàcc 94 milliards boobu ak tey jii mënuñu fexe ba yey askan wi ndaxte élection locale yi ñu weesu mooy wane ni askan wi ba tey jii ñi ngi safoo Ousmane Sonko ak coalition Yewwi Askan Wi. pexe yi ñuy def sax bokk na ci biir Yewwi Askan Wi ñu fay waxloo ay nit. ñu naan Yewwi tas na Yewwi tasul lu ne ñu jéem ko ngir tas Yewwi Mahmoud sale nag lu mu waxoon lii da koy dëggal mooy danoo war a massacrer opposition bi di Yewwi askan wi tànn seen opposition bopp opposition bopp du ñàkk ci la ay aar Sénégal bokk ak ay bokk gis-gis ak ñoom it seen mooy opposition bu nooy bi tey tëmbal glace saa su ne Yewwi askan yi nag danoo dëgër loolu Macky Sall sax wax na ko ci Jeune Afrique Barthélémy Dias ak Sonko ak seen xët-xët ak seen ko tàngoor Macky Sall dem na ba nangu ñu ñoom ñooy opposition bu dëgër bi Macky Sall nag kii dëgëral ci kanamam lay bañ waaye lii conseil constitutionnel dogal ci ni Ousmane Sonko ak liste ba mu jiite du bokk ci élection député yi bis bu waa yeewi askan wi ak gars yi Sonko yi bàyyee mu jàll bu boobaa ñu xam ne door nañ seen loxo ci ëkk ndaxte bis bu lii jàllee 2024 bu Sonko nekkul candidat ci ay tappale bu mu bett kenn kon le 8 bii di 8 juillet waa askan wi war nañu wane seen diisaay loxo nanu ko defoon ci weeru mars ndaxte nguurug Macky Sall xamuñu ni buur saay na waaye buur deel na lan xam wala buur nee na neneen